tey bosu altine fukki fan ak juróom ci weeru mars miñ nekk ministère la santé et l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci junni ak ñett téeméer ak fanweeri test yu ñu def téeméer ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasu woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam mooy importé waaye am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñu ñu tuddee cas communautaire ñooñu nag nii la seen lim bi tëddee ci ndakaaru ak li wër am nañ ci fukk ak juróom-ñeent ñooñu nii la ñaar ci ndakaaru plateau ci Mariste Pikine ak Rufisque benn ci Médina Castor Wokam Almadi Nord ngor Ngor Diamniadio Sébikotane Jaxaay Diamaguène ak Yeumbeul ci région yi am nañ ci juróom fukki cas yu tëddee nii fukk ak juróom benn ci Saint-Louis juróom-ñaar ci Tivaouane juróom ci Kolda ñett ci Popenguine ak Thiès ñaar ci sali Dakar ñaar ci Saly Daara mbuur ak Touba benn ci Diofior Linguère Somone Toubab Dialaw Diass Richard Toll Ndiassane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 Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-benn ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñaar ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom wér nañ ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi. ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xareel na àjjana